comparaison ne pas du tout bonne. Mm. man rappeur laa joteel ñu xeex ma dem ci kaso. yow nga ne ñu daje kaso daje nañ kaso effectivement ñu ngi daje kaso juste après la candidature de Wade bi ñu conseil constitutionnel validé candidature Wade j'étais à la chambre 14 mooy sama première fois dem kaso. mais avant cela parce que sa comparaison dafay wane ni yow da ngay xeex pour dëkk bi ñu tëj la. man du ma wax ñaata yoon lañ ma tëj pour dëkk bi c'est pas important de le citer hmm. parce que loolu teguma fi je pense que je ne fais pas du ma nekk fii di def sama biographie en terme de arrêté nañ ma fii arrêté nañ ma faa arrêté nañ ma faa pour le pays c'est pas important je laisse les Sénégalais pourquoi la comparaison n'est pas bonne dans le hip-hop il y a ce qu'on appelle le beef il y ce qu'on appelle le clash rappeurs yi dañuy jotee di xeex des fois pistolet génn nit ak sax dañuy jote bi ñu jotee atte nañu ñu et grandeur a été rappeur bi si boppam taxaw naa ne ko baal ma àq plusieurs fois këram ne ko baal ma tooñ naa la je me suis emporté waruñu woon xeex loolu man la ak rappeur bi du réew mi laa ko amee non non da nga ni NTS nga. non déglu non non bu ñu taxaw foofu. non ah oui. mais leader nga. non déglu ma rek diriger mouvement bu yëngaloon mouvement bu déglu rek. yaa doon yor micro mais est que tu peux m'écouter àndal ak dal. non maa ah, fàttali rek. loolu bi mu amee. mouvement Y'en moo jël responsabilité moo jël no mais ma rek loolu dañ koy évacuer mu jeex. Mhm, voilà bi mu amee. mouvement Y'en a marre moo ma njëkk a mettre en quarantaine tere ma prise de parole pendant pendant presque deux mois. tere ma teew ci assemblée général Y en a ñoo ko Malal a d'abord été jugé par le tribunal de Y en a avant d'être jugé par par le par le ministère de la justice ma tëdd sama kaso génn après cela tëjaat nañ ma kaso ah pour le pays et plusieurs fois tëjaat nañ ma feneen kaso fu dul Sénégal pour l'Afrique donc du yooyu la ñuy bàkkoo Ah, mais mais pour justifier pour justifier la lâcheté et je maintiens mes mots il est lâche il est escroc il n'est pas sincère est-ce que tu peux me permettre de justifier qu'est-ce que c'est que la lâcheté la lâcheté mooy nit ñi ànd ak yow gëm la ci benn combat nga beddeeku tàgguwoo nit ñi dem def li ngay def parce que il y a la base d'abord Macky du ànd ak ku amul nit parce que la politique c'est une question de nombre calcule 1 2 3 4 pourquoi il est escroc mooy il a dit duma mës a jël poste boo xamante ne décret la il a dit les les paroles sont là je ne les invente pas xam nga en fait wax wax bu rafet pour sénégalais i ne diw de dafa yaru dafa baax dafa correct malal correctul mais moi c'est ça ma personnalité et cette personnalité je l'assume je suis de la culture hip-hop. non, que les mots ah, sont correctement Non, non, les mots sont à leur place. Oui, oui. Quelqu'un qui n'est pas sincère, c'est quelqu'un qui dit quelque chose qui n'est pas la sincérité, c'est quoi? Mais la sincérité, c'est quoi? Quand je, ça ne fait pas quand je dis que non, quand je dis que Charles, je dis que un escroc, c'est quelqu'un qui trompe. nax kuy naxe mais soyons sérieux les gars. Ah, un escroc mais non non non mais non on dépassionne mm. mais mais mm. quand même dama bëgg aussi. mën naa intervenir dama bëgg yéen ngeen gis. un escroc c'est quelqu'un qui trompe. dafa interpeller ma wax. dama ne dama ne il faut ma dama ne dama ne. oui ça avoir. mën na am financière escroquerie intellectuelle. quand quelqu'un essaie Même tu moi. parles de d'escroquerie intellectuelle. Oui, voilà. c'est un escroc intellectuellement parlant. Non, non, non, il faut me parce que beneen affaire bi ci topp. c'est un lâche et je l'assume. pourquoi il est lâche parce que effectivement c'est un c'est nit ñi dañ ko gëm. dañ ko gëm. dañ ko gëm non dama ne moom dañ ko. est-ce que est-ce que itam ñoo ko wax bu la ànd ak Macky Sall. est-ce que est-ce que tu sais que. est-ce que ce sont ces militants. da nga dégg militant réew mi. dajaloo ne Idriss Seck bu ànd ak Macky Sall ba mos a dégg ci réew mi. il y a est-ce que tu l'as entendu. il y a yow non c'est faux. Ah. monsieur madame est-ce que tu peux tu n'es ni membre de la de Rewmi tu n'as jamais entendu les militants de Rewmi ndax bu la ànd ak Macky Sall. est-ce que tu mais mais bon analyse de la langage non vous ko dégg c'est faux. est-ce que tu peux écouter non daf ci wax ma tontu ma joxaat ma tontuwaat après. même si ça ne sort pas du modèle. c'est pas vrai. s'il te plaît non tu utilises des mots pour faire mal day xuloo. déedéet non si da ngay xuloo. déedéet loolu mooy daf la blessé. Sénégalais wax. pour wax ne man je suis un vagabond. non non non mais der bu ñu tëj plateau ne prouver les mouilles bi may dem. c'est archi faux. non il a trompé. Birima tu vas te taire. tu vas te taire. tu apprendras à te taire. mais tu te tais. tu te tais. comme tu n'as pas la parole. parce que yow lay waxal. tu te tais. non. dama non dégg nga amul malade birima arrête yow yow arrête dama ne dama ne toi aussi xoolal déedéet oh, déedéet mooy ñu utiliser une truc pour l'insulter mais du mooy xam ne c'est faux s'il te plaît c'est pas ton problème c'est pas ton problème da ngay xuloo da ngay xuloo mais oui c'est pas bien oui c'est pas bien damay xuloo désolé mais damay xuloo c'est pas bien mais damay xuloo mais c'est pas bien non non non attendez on désamorce tout gis nga gis nga non non je suis pas d'accord Baye Ndiaye maslaha voilà là je te retourne voilà tu déclenches des choses qui non c'est-à-dire lii ñu ne m'énerve pas mais c'est Birima qui m'énerve mooy ko ci waxam. mooy ko ci waxam. Birima ne lui parle pas. bàyyi ko mu xulal xulal boppam. voilà voilà. non xulal boppam déet. damay ci jotaay ngeen di wax. déedéet. li ngay wax tu la di insulté ne génnoo man yoon daf ma atte tëj ma waaw mais may ma voilà mais loolu su doon kenn yéenewu la ko man yoon daf ma atte tëj ma mais loolu kenn yéenewu la ko waaw mais malal non déglu ma rek yoon daf ma atte tëj ma waaw may malal malal xuloo fi mu la may une minute cool non may ma man da nga mer di xuloo mais damay xuloo et c'est pas bien malal may ma mais birima débat am na yëkkati baat s'il vous plaît on parlait de Idrissa ma oui ma mais débat day am Idrissa Seck CSE que je fonctionne comme un grand hypocrite di wane ni revenons au débat mais dafa am dafa am dara dafa am dafa am dara lu am je l'ai président les Sénégalais qui nous regardent nous devons avoir du respect quand même le respect pour le Sénégalais quand quand même mënul lii mënu c'est pas possible. c'est pas possible ñuy respecté ñëpp ñoo xamante ne vendredi bu dee. dañuy toog di ñu seetaan pour on on peut ne pas être d'accord. et tout ce qu'on veut. on peut parler d'escroquerie intellectuelle je peux l'accepter. Mm. il y a des termes ce qu'il faut comprendre c'est qu'un débat libre. Mm. les règlements de compte personnels n'ont absolument rien à voir. voilà mm. fii non je dis en non bu may wax waxuma la yow. waxuma la. voilà nous sommes sur les idées. Ouais. et les principes. et les principes. sànq tey ku si nekk ku si nekk mun nga am loo sa xalaat encore que sa xalaat. mais merci bien dit Charles bien dit Charles oui oui Bouba. oui oui écoutons écoutons Bouba dafa am dafa am loo xam ne dafa am loo xam ne. Euh, ku mënul encaisser. mënoo toog ci émission bi. voilà mm. surtout moi il y a trois semaines j'ai été traité de lâche et j'ai pas bronché pipé un mot. donc nañu avancé ci li li tax réew mi di dem parce que ku mënul encaisser le règlement personnel li ko Charles wax c'est pas ce qui nous intéresse. par contre gis nga booy jël un franc au contribuable sénégalais bi. c'est bon dafa am kàddu pour wax la boppam dans le respect bien sûr. mais je pense que. Yirim wax na ko sànq bu ñu bëggee nit ñi di ñu seetaan aussi position lu mu metti metti metti ku ne nañ la nangul sa position te bañ la non te bañ la cal caricature def la opposant si tu dis ce que on dit que dafa mel ni c'est-à-dire que euh, affaire bi ñaari camp la te du ñaari kaa parce que nit ñi du nangu ñu dugal leen ci benn camp dëgg la par dañu nekk fii pour nit ñi ñu seetaan wax fa dëgg yàlla dañ leen koy ñaan rek li xew ci kaso bi yéen ñaar ñëpp tey jii seen sët bu toogee di ne benn jour dugg naa ko kaso kaso jombul kenn pour sama patrie je pense que da ngeen waroon am ay ay ay affaire convergence ku nekk di wax wax dëgg yàlla alors justement Yérim pour pour revenir au débat oui voilà est-ce que l'argumentaire de Badara tient la route ah non attends attends moom di na sëñ bi nag te man naa wax ci